Biram sa open press tey nga def ko si anam boo xam ne si say mbokk ñëw nañ say xarit ñëw nañu waaye amu na ñu ñëw ci combat bi da ngaa dugg Fass daan fa ndaanaan muy Moustapha Gueye numéro 2 nga war a duggaat Fass war a jàkkaarloo xale boo xam ne ndaanaan la moom itamit si wàllum bëri tey Abdou noo waajee sa combat. waaw ma sant yàlla jërëjëf si yéen di sant sama ñaari waajur maa ngi sant sama ñaari waajur sant Serigne Sidi Mbacke alxuraan yëpp di ko santaat encore. ndax làmb ji maa ngi koy waaj ak samay mbokk samay gaayan am di nit comme niñ ko daan waajee rek ba léegi bilaay daw abu abu mën nañoo wax ñëw si préparation làmb ji ñu gis ne préparation làmb ji met yàgg na yàggul mhm. waaye tamit da nga dem jëli ji ay ñoo xam si ni tamit gis nañ ngay ànd ak yeneen nit ñoo xam si ni dëgg la bokk nañ lam sax waaye danga fay ay nit spécial pour combat combat bi dafa am fu la xam nga fi mu la mën a yóbbu ba nga def loolu yëpp. non du cadre fay parce que ñi ñuy entraînement ñun ñëpp pour am xam-xam la ñooñu fay ñu leen lu nekk ñoo xam ne dañoo baax ñu xam ne ay ndaanal lañ. xam nga ni ma ñu dem di leen jegewaale di sàcc ci ñoom xam-xam am xam ñuy préparé maa ngi préparé wu lamsaan ak fépp. fépp fu ma xam ne moo te demee. dem nga ci gàmm yi. waaw gàmm yi yóbbante Pape Ndoye am na di ko wax na ñëw ñu jaay combat bi dimanche ñu bëre ko si ngor ak coom ak fulla borom bi defal ma nekk si kattan yàlla waaw waaw surtout waaw jërëjëf di sant waa Gambie di sant waa Gambie di santaat waa di santaat bu baax waaw maa ngi leen di santaat bu ñoom ay jàmbaar lañ ay nit ñu baax lañu ay nitu teraanga lañ. lu tax bu combat amee yow ak bu combat amul yow dafa mel ne Gàmbi mooy sa dëkk mel ne Gàmbi mooy sa kër yow lépp Gàmbi. waaw dama ci fier. Hmm. dama ci fier torop torop parce que dëgg dañoo dañoo dañoo mën nit waaw dañ lay maanaam dañ lay teral dañ lay tatagal man bu ma nekkee dara lépp jàmm. waaw bu ma ko jugee gars yi xam ne kii fi mu nekkoon nii nice. Hmm. sant Moussa Paye Seydou ñoom MC gars yi di sant sama boy bi Alou nga bu baax ak waa Kayaar ñoom Ndeye Racky ñoom Ndeye Racky ñoom Seydou kenn bu mu limee jëm ñu ay yaa jata ñu ngi jógee ñun seen dundu gàmm foofu métti na wala métti non firi doom neex bëri jàmm lépp jàmm non stress. Eh, doomu jàmm nga. Gambie ak Sénégal ban moo daax. ah Gambie neex na de en tout cas loolu laa la mën a wax.